لا لخير الله سبحانه فاتقوا الله يا أولي الألباب فتقوى في القلوب لا في اللسان أي في قلب الذي صاحبه له البصيرة والبصرة قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم الإنسان أيها المسلم عليه أن يعرف أن المخلوقات أكثرهم لا يعصون الله سبحانه فمثلا الموت الموت قلق لا يعصي الله وهو مأمور والجوع قلق وكذلك الفقر والمرض والحياة والغنى والرزق والماء كلهم عباد الله والهوى كله والهواء كلها مثلا أيها المسلمون لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأمور كلها بيده عز وجل لا أحد يتصرف فيه كيف يشاء إلا هو إذن الذي يقول الذي يقول أنه يتصرف في هذا فقد كذب بهتانا عظيمة وبتفصيل الموت بيد الله ولو كان الموت بيدك أنت وظلمك أهل وهو أقوى منك ما ستفعل تقتله يعني تأخذ الموت تأخذ الحياة منه ويموت وتستريح منه ولذا جعل الله الموت بيده سبحانه والموت مأمور ولا يعصي ما أمره الله سبحانه وكذلك الجوع ولو كان بيدك لا تجوع أنت ولا تعرى وكل من غضب غضب غضبت عليه تقول له هم ستعرفني اليوم ولو كان الجوع بيدك أنت كل من غلبت عليه تقول له اليوم ستعرفني اليوم ستجوع وكذلك الفقر إذا داق عنك الرزق أو أحد أداخ أداخ في رزقك تمنعه من الرزق الآن في نفس الوقت وكذلك المرض أيها المسلمون عبد المرض عبد من عباد الله الصالحين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 على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله إليه وأستغفر الله وأتوب إليه إنه هو تواب الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وخاصة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 pour ma ñëw defar jikko yi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ma yónni pour ma ñëw defar jikko yi ma wax rek ne su fekkoon nga xam ne yonent jeexutoon tey bu ees war naa ñëwaat defaraat jikko yi jikko yi yàqu nañ ba nga xam ne kilifa dafay toog di wax lu ko óorut mag dafay jóg di yàqal moroomam mag dafa jóg di weer moroomam ma ne bu fekkoon nga xam ne eh, yonent jeexutoon damay wax ne bon yonent war naa ñëwaat defar àddina bi àddina bi yàqu na rombat ci mbedd yi bu la neexee mbedd yu mbedd yu sew yu guddi bu la neexee nga gis loo xam doo ko wax kenn bu la neexee jaar jaar ci nga seet yoon yu ndaw yi boo fa jaaree guddi nga gis loo xam ne billaay doo ko wax kenn lu tax jikko yee yàqu te du mag ya koy def de waaye xale yoo koy def xale yi ñoo koy def te xale yooyu ci kër lañ jóge te boo laajee baayam mu ne mënuma ci xale yi dara yaayam mu ne mënuma ci xale yi dara su fekkee yow mi amee xale bi di ko jox mu lekk di ko jox mu naan di ko jox mu sol mënoo ci moom dara kan mooy man ci moom dara yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mu ngi ci kaw lan lay def toog la xool du wax dara du wax dara lan la lan la mooy wax inna rabbaka la bil mirsad yàlla mu ne maa ngi lay xaar ci Johnson bi doo xoroom soo fi nekkee def loo xam waroo koo def na nga xam ne am na bés boo xam ne dana am koo Johnson boo xam ne fa àggee dañ leen njëkk ci la yàlla mu ne inna rabbaka labil mirsaati yàlla mu ne maa ngi lay xaar doo ma raw yàlla mu ne maa ngi lay xaar doo ma raw olof ñu ne drive ngaana xaar ko te koof la koo xam ne amul loxo mu ne dafay drive moto bàyyi ko muy koofu man mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax te xam ne yàlla mooy yàlla rek ñu ngi seede ne amul benn buur ku ñu war a jaamu ku dul yàlla waaye nag yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni mbokk yi ñu ngi sant saxaaba yi nga xam ne ñoo sosoon ci yonti yàlla muhammad mooy abou bakrin omar usman ali yàlla yàlla gërëm leen ak mbooleem saxaba yi nga ne ay junni junni lañ woon ñoo taxawal ci gannaaw moom sallallahu alayhi wa sallam doon def lam ba door def lam daan def yi wax ne suñu xutba gi tey ñu ngi ko lil lahi la lillahi laa li xeyri dama ne ragal nañ ko def kese kuy ragal na nga ragal yalla, kuy jaamu na nga jaamu yàlla kuy topp na nga topp yonent muhammad sallallahu alaihi wa sallam soo ko deful nga perte soo ko deful nga perte kuy ragal ragalal yàlla kuy jamu, jaamul yàlla kuy topp toppal yonent muhammad sallallahu alaihi wa sallam soo ko deful nga perte nga perte sa dund ci àddina nga perte dund ci tey nag ñun ñi xam ne ñooy oote suñ boobu nañ jullit lañ da ngay wax ak ni mooy la danaa la rey nga tiit mën na laa rey xanaa moo la defar ba rey da wax ak nit mooy laa dama laa rey yow xam nga man maay kat man maay kii xanaa moom moo la defar ba lay rey bon ma ne alxawfu lillah kuy ragal ragalal yàlla subhaana man mbokk yi suñu waxtaan bi tey mu ngi ci ragalal yàlla te nga xam ne ragal yàlla moomu ci xol lay nekk nekk ci gémmiñ toog ne man ragal naa yàlla ma déedéet dafay nekk ci xol nga xam ne li nga xam ne mooy ragal yàlla moomu dafay nekk ci xol boo xam ne jëmm ji ko amee dafa am basira dafay gis dafay xalaat nit koo xam ne day xalaat moo tax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne تفكروا في الله تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا صلى الله عليه وسلم ما بيننا ديرين خلاد لي الله بنت بولين خلاد يالا غير خلاق سبب خدوينا لا شيطان محمد نينا خلاد لين سلي يالا بند بولين خلاد يالا غير خلاق صلى الله عليه وسلم دو واحد يالا نكو وما ينتقو عن الهوى ان هو الى وحي يوحى لو واخ رك لول صلى الله عليه وسلم محمد nee خلال لين تي ci li yàlla bind bu leen xalaat yàlla ngeen xalaat nga bay sa xel ne yàlla wax na ne fattaqullaha ma stataatum na ngeen ragal yàlla lu ngeen man ragal len yàlla lu ngeen man nit nak warna xamne li yàlla bind yeppe jaamu yàlla du ko dee mooy ba mu des doomi ak jinne ñooy mooy moy fet yàlla yi nit ñi ak jinne yi ñooy moykati yàlla yi garab yaa ngi fi mboolem li fi nekk yëpp day jaamu yàlla waaye duñ moy yàlla waaye nit mooy moykat yàlla bi moo tax e, e, yàlla wax ne yomal xiyaam bu ñu demee safara ay doomi aadama ak jin ak ak ak ñoo koy feesal ak ay ay mountain ay xeer ay nit ay mountain ñooy feesal safara bon duñ fa wax am benn mbaam wala xaj wala benn rab déedéet ku fay nekk nit ak xeer ak jinne mbokk yi bon mbindeef yépp dañu jàmm yàlla nga xam ne li ñuy woyee dee nga xam ne ñëpp ko ragal yàlla nee na qul inna al mawta allazi tafiruuna minhu fa innahu mulaqikum yàlla nee na dee bi nga xam ne ñëpp ko ragal di ko daw dafay ñëw si yow dajee ak ñaw du dee dàqee mu ne dee du dee dàqee soo dawee ni nga daw de dee dafay ñëw dàqee yow fa innahu mulaaqiikum dafay dajee ak yéen bon dee moom nga xam ne yàlla moo ko bind ñëpp ragal ko di ko daw lool ma bëgg a wax ne dee moomu abdun min ibadillah jaami yàlla la dee jaamab yàlla boo xam ne duy mooy yàlla li ko yàlla wax moom lay def su ko yàlla ya waxee ne imaam moo war a dem imaam mooy dem ku yàlla wax ne tey moom la dee war a ñëw yóbbu koo koy def du mooy yàlla kon kooku jarul ragal soo ko ragalee ba nga xam ne da nga ne tey dama koy daw tey de bés boobu la gën a métti ne ñu ne israiliyaat la ñu ne yonent yàlla dafa am benn gan toog di waxtaan ak moom mu gis benn waaye ñëw rek egsi rek toog di ko xool di ko xool ko xool ba di xonq lool mu koy xool di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg rek mu jóg dem ba mu demee eh, Ibrahima Souleymane wax gan bi ne ko ah, gan bi day ki mu ngi xool de mu ne ko man kii ki ragal naa ko ñu mel ne ñu mu ko de mu ko amul ah, mu xool de gan nga jóg dem léegi Souleymane ne ko gis nga gan boobu dafa nekk ñu wooyee malakul mawt yow la ñëwoon de dafa ñëw pour jël la pour rey la kan bi ne ko ha mu ne ko waaw kan bi ne ko suleyman dimbale ma gaaw ma daw dimbale ma daw dimbale ma daw ma daw dee suleyman ne ko ngelaw bi jëlal ma ko yóbbu ma ko inde comme ça naa fi gambia dem Amerika. ba muy àgg america rek ma la ko mu di ko rey ko bu yàgg waññee ko at Ibrahima Souleymane ci élection ñëw ne ko nuyu nuyu si waat ko mu ne ko yow de suma gan bi dem yaa ngi doon xool rek mu ne ko waa dama ñëwoon pour rey ko waaye mu war a deexee en te mu nekkoon fii moo ci jaaxaloon waa dégg nekk fii te waru fee war a deexee dafa sori te war naa dee temps bi jot na fii moo tax ma nga doon xool waaye dama jógee fii rek gis ko indi rek ma rey ko benn yow ma bëgg a wax ne innal mawta allazi tafiruuna minhu fa innahu mulaaqiku dee kenn mënu koo daw bon ma ne dee mbindeef la jaame yàlla la tuy duy mooy yàlla duy mooy yàlla mbokk yi nga jógee ci dee nga ñëw ci lu ñuy wax aljuuo mooy xiif ñëpp ko ragal ñëpp ragal xiif kër yi yëpp bañ xiif la soo xëyee yaa ngi daw ba ngoon jot pour lan ab dalasi pour lan nga depp ko dem lekk ko pour lan bañ xiif xiif moom duy tooñ musa toñ ken yalla ko bind ku wara xif xiif da nga xiif ku wara sur suur da nga suur da nga bay sa xel yàlla waxoon na ne inna maal usri yusra yàlla waxoon na bu yagne ne bu méttee rek fay neex ku xif da nga suur ku fi xif da nga suur bon bu bu boo xiifee muñal mbokk yi nga jógee foofu nga ñëw lu ñuy wax al maradu wal hayat de ak febar de momu ak febar feebar dafa nekk loo xam ñëpp koy muytu te nekk na loo xam lu baax si doomi aadama la lu baax la ci naka feebar mooy loo xam ne day raxas nit ki dafa lay raxas sa bàkkaar yi ba na koo xam ne dafa war a am kër gu foor ci àjjana kër gu foor kër ga mu war a am àjjana moom mënu koo liggéey fi si àddina yàlla teg ko nag feebar bu metti lool mu métti mu metti mu métti bala moo dee fii fekk na amatul benn bàkkaar mu dugg àjjana léegoo-léeg nga gis koo xam ne dafay dee ci biir safara safara si tàkk tàkkale ko ba mu dee ba lakk ba jeex xam wow koŋ ñëpp yërëm ko li tax faw la mu war a am ëllëg mënu koo liggéey nga gis koo xam ne génn fii moo tax enn ko moo tax boo xam ne troog la bu eb er xeer bu eb er béton eg ci kaw mu pëcca mu tasaaroo métti lool dégg nga métti lool lu tax la war a am fële mënu koo liggéey fii bon nañ xam ne dee dund feebar mbir la yoo xam ne ñoom moom a ànd te ay mbindeef la yoo yàlla bu leen bind nga bàyyi sa xel baax bul dee nangu mukk ngay ragal lenn ci àddina si lu ma ak yàlla subhanahu wa taala koo fi ragal rek yow weddi nga yàlla mbokk yi ma ñëw ne am na lu ñuy wooyee rina mooy koom-koom am xaalis bu bari ku nekk da nga bëgg am ku nekk yàgg ngi bëgg am te ñëpp duñ mën a am ñëpp buñ am buñ mënee buñ amee du neex soo amee sa morom am sa morom am sa morom am yow ku lay liggéey borom xaalis dana koy liggéeyal il faut yàlla dana tàggat koo xam ne moom du am mooy ñëw sa kër di la liggéeyal nga koy fay lu tax pour yow nga mën a bànneeku sa xaalis yàlla du dee juum yàlla mësta juum yàlla koñ bu nekk bàyyi na fa ñoo xam ne mën nañ koo régler bu dee xam-xam la loo laajte ñu wax la ko bu dee am-am la loo soxla jox la ko bu dee da nga feebar war a wér am na ñoo xam ne mën nañ laa dimbale nga wér. boo ay ñàkk yére am na fa ñoo xam ne laaj mën nañ laa dimbale nga am yére waaye nit ji ñoo pare wut a defar dara doomi aadama dara dara dara te koo xam ne doo joxe dara doo am dara yonent bi yàlla nee na wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu yàlla mu ne loo joxe ma joxaat la ko amul sax demal ñëw boo joxee léegi ma jox la ko léegi waaye koo xam ne doo jox kenn dara du sotti yonti yàlla muhammad sallallahu alaihi wa sallam dafa wax ne ma min yawmin yusbihu fi ibad illa wa malakain amul benn bés boo xam ne dina xew suba teel lu may dina am ñaari malayka yoo xam ne dañoo ñëw si ci fajar gi di ñaan yàlla yéen ñëpp xam ngeen ñaan malayka malayka lu mu ñaan yàlla daf koy def benn malayka di wax naan allahumma aati munfiqan xalafan yow yàlla képp koo xam ne da ngay dafay def lu baax dafay defal yàlla lépp lu mu joxe yàlla na ko yàlla na ko amaat beneen malaayka di wax naan allahumma aati yow sunu borom képp koo xam ne lu du joxe dara kenn lu mu denc yàlla yàqu daw na yaram de bi dafay wax ne bés bu nekk mu ne képp koo xam ne lu dafay daf dee dimbale lu mu joxe yow yàlla yàlla na ko def lu ëpp loolu te gis ngeen ko beneen bi ne yow yàlla képp koo xam ne jox kenn dara lu denc yàlla yàqu gis ngeen ko fi ngay gis koo xam day tax am lu dul jeex bés xëy benn bi rek marché ba tuux lakk yëpp kër ga lakk yëpp yëpp jeex lu ko dee waral doo jox kenn dara waaye ngeen bàyyi seen xel ne ñi nga xam ne dañoo génnee seen asaka yi di ko jox baadoolo yi billaahi duñu yàqule ñi nga xam ne yow jënd nangoo génne seen asaka yi di ko jox ñi ko eyoo xaq yàlla ji ñu koy génn di ko joxe wallaahi duñu yàqule mbokk yi bon ma ñëw ne eh, lu doy waar mooy ndox almaaw ndox ak ngelaw muy ñaar yoo xam ne bokk nañ ci yi gën a am njëriñ rawatina ngelaw ngelaw ngelaw moomu su fekkoon ne yaa ko moomoon tey koo meree da ngay téye ngelaw du nokki soo meree kenn da koy da ngay téye ngelaw du nokki yàlla yombal ngelaw ba nga xam ne ngelaw du jar dara du jar dara képp kenn ku ne mu ngi am ngelaw normal du ko di génn du am benn problème te bu fekkoon ne nga xam nit ko moomoon billahi bon nga xam nit nit soxor bu fekkoon nit moom moomoon nga rew tey da gis koo xam ne dafay mere nit rek ne ko doo fi nokki waat kii ngelaw li du nokki yàlla subhanahu wa taala andi na ngelaw li yombal ko lool te ngelaw moo nekkoon loo xam ne moo gën a important ci doomu aadama boobu moo nga dundee keroog bu taxawee rek nga jógee nga jógee fi yàlla def ko mu nekk may ma bëgg a wax ne bu fekkoon nga xam nit ko amee woon tey du baax du sotti mbokk yi yii ma la doon wax noonu mooy dee la dund la wërsëg la ñàkk la am la yu mel noonu yëpp ngelaw ndox képp ku la wax ne mën naa ci def dara benn pexe waxu dëkk képp ku la wax ne mën naa def dara yooyu waxu dëkk lii moo tax yàlla subhanahu wa def dee ci loxo moom yàlla moom mooy rey moom kenn moo def yàlla moom kenn mooy rey amul kenn ku la fa mën a rey ku la wax dama laa rey soo defee nangam dee soo defee nangam dee ma rek nga ne koo rey ma waaye bari na ñoo xam ne bu la waxee ni waxee dama laa rey nga daw nga tiit nga wuti guru nga dem ñaani ko sax nga ñaani nga ñaani yàlla mu baaral ci kaw lan moom lan la man dara bon mbokk yi ñu bàyyi xel baax ne yàlla moom mooy koo xam ne mooy def lu ko neex amul kenn koo xam ne am nga doole pour def dara moo waxoon ne feebar mii jaam yàlla boo xam ne yàllaa koy teg ko neex am am mii jaami yàlla la yàlla moo koy jox ku ko neex wërsëg xiif mar bu fekkoon ne nga xam ne tey yow yaa amee woon am am tey képp koo xam dafa ñëw dóor la man la ëpp la doole lool looy def da ngay ngelaw ne ko doo fi nokki mu jeex léegi mu dee lu tax parce que moom moo la ëpp doole te dóor na la mënoo ci dara amuloo benn pexe waaye bàyyee ko yàlla subhanahu wa mbokk yi lii mooy li xew يونس يالا يالا نينا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي قلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز القفور يالا من من يالا ما سل يالا من من سل ما سل يالا من موي جوخي بيده الملك لي خوي موكاي ديف لي خوي موكاي ديف amul kenn ku ku mën def dara wa huwa ala kulli shay'in qadir lépp lay def moom yàlla yàlla mooy koo xam ne xalaxal mawta wal xayaata moom yàlla moo bind dee moo bind dund mënoo ko dundal benn weñ weñ si mënoo ko dundal weñ mënoo ko dundal mënoo ko rey dara lu fi xew yàllaa ko def yàlla moom mooy koo xam ne mooy joxe yépp amul kenn koo xam ne mën nga faa def lenn bon bu fekkone amna ko xamne mo amé mbir yi man na métti lool ci képp ko xamne mere na la waye nak yàlla moy ko xamne amul ken koy joxe ben keur ndox wala benn kër ngelaw wala ben keur li lu muna nek amul ken koy jox ken mooy yàlla subhanahu wa taala mënoo ci dara loolu tamit yàlla subhanahu wa taala yónni yoni yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko ko xamne basiran wa nazira mu leen mu ñu digal ñu def lu baax waaye mu ñu dee wax ne nañ moytu def lu bon wa daa'iyan ilallahi bi iznihi wa munira yàlla mu ngi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi oote yu jëm ci yàlla wan ñu lu leer nañ képp koo ko jaar da nga raw koo bàyyee yàqu ñu tekki ne mu bon njulit yi képp koo xam ne wàkkilu nga ci keneen koo xam du yàlla yow juum nga nga xam ne yàlla rek mooy koo xam ne moo mën a jox kenn dara waaye mu mën a xañ keneen dara képp koo xam ne am nga ñàkk fayda ba dem ci benn waay boo xam ne mu nga jógee fa mu jógee ñëw luwaas ab néeg bu ndaw ñu ne ab sëriñ la xaw ma xayam ne ab sëriñ la xawma xayam moom ngay dem ne ko mu dimbale ci nangam ak nangam ak nangam ak lan lan la man bu ko mën lu ko defal boppam su fekkee moom mën naa faj soxla du faj soxlaat moom bu fekkee moom dafa mën a faj soxla moom ana soxlaa bi moom yow yaa koy jox néegum dëkk yaa koy tibbal boobu mu lekk nga ne moo lay fajal sa soxla ban lu mën a faj lan mbokk yi nañ delluwaat ci yàlla subhanahu wa nañ gëm kuy gëm-gëmal yàlla kuy gëm-gëmal yàlla kuy ragal ragalal yàlla kuy topp toppal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa boo ko defee garab soo ko defutee yomal xiyam na nga xam ne ko fi top yow mal don taxaw ak yow ne la yama top won way man dama la waxoon ne bu mo top istabarra allati tubio istabarra allati tubio ñi nga xam dañ leen do don top ne serigne la wala li li la yow mal da fay lay war dalay taxaw mooy yama top won waxuma la ko won allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad leen di wax ne inchallahu altine dana am ay pengukat yu ñëw ci dëkk bi di pengu e pour pour e, pour malaria ñu bàyyi ci xel koo xam ne am nga ci intérêt nga dem wér gu yaram lu am solo la sabablu pour wér baax na waaye pengu mënta wéral ken kii wéral mooy yàlla amul kenn koo xam mo moo la mën a ku mooy ak yàlla yàlla moo mën ay la sabab lu moy lima ma la wax léegi rek mooy nga xëy dem liggéey pour nan nga uti dara loo am loolu sabablu la da ngay try nga uti ci uti try boobu yàlla dimbale la koo xam ne doo def dara doo am dara koo xam ne day toog doo def dara doo am dara yàlla nee na uddu udduuni astajib lakum ñaan leen moom may leen ñaanoo ko du la may yàlla mu ne udduuni astajib ñaan leen ma ma may leen koo xam ne doo def dara doo am dara allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس والحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يجل جمعة جدي فيس لum xat xat dugal lum xat xat dugal seydina عمر الخطاب مسنا mas جمعه wax ne jumaa تو fees fees toog jul dugaleen ba sax boo amutee نسجود sujjóot nga sujjóot sa gannaaw morom nga sujjóot si